sunu réew mi rëyu kay dafa seetaan jom jooju mi ngi fii masu fekk jom jooju mi ngi fii masu fekk Augustin Senghor Senghor def na fi 12 ans 12 ans yi yim fi def man mënu ma gis résultat bo xamanteni def nako fi waaw moi je suis pour euh, Augustin Augustin Senghor mom dafa wara dem mom def na fi 12 ans am 4 mandats, amul ben amul ben réaction gañewul ben trophée. bëgg changer aussi est-ce que jarna aussi ñi jëm indi ko xamni ne tamit. Euh, amagul amagul compétence ci affaire yi quoi di fekk génération foot avec fédération sénégalaise de football du ben wax fa dëgg yàlla ñoom ñaari ay candidats yu bax lañu mais en fait Augustin dafa nar a séddee. saa yi ñu tollu ni wa man mom saa yi dama japp né Augustin jotna mom mu dem quoi abal ñu. man dama gis né que bon Augustin mission la quoi bon mission am parce que durant les douze douze douze ans yi ñu nekk nii Augustin douze ans la toog bon quatre mandats la am instant bi jeexal na dafa war a mun a wàcc bàyyi Madi ñu ñëw ñu xool Madi moom lu mu bëgg a liggéey. ragal rek moy li ñu dal ci Macky Sall dal ñu ci Madi Touré ñu mer na dañuy changer dañuy changer mais jël ko xamné ni nii maîtriser maîtrise wul affaire yi su ñëwee day tâtonné rek day tâtonné légui dañuy am lu gëna bon lo xamné ni mom lañ doon mom lañ doon mom lañ doon ñaxtu quoi donc man loolu la ci ragal donc loolu rek moo ci nekk sama souci mais à part ça moom il est temps que ñu changer affaire yi mais aussi est-ce que Madi Touré su ñëwee dina nekk à la hauteur euh, bañ ma je veux m'exprimer dina dina wax lan mota Augustin euh, nañ ko gunge euh, pour mu mu yor suñu suñu football parce que buñu xol buñu confondre politique avec football football ak politique du ben Augustin waxoon na ni bu amé ben mandat ñaar ba di du présenter wu boba circonstances yi nekkoon ci ginaawum xamul xamul luy lu lu kaf duy doxale Sénégal a am un représentant digne comme Augustin Le Augustin bu demee un yàlla may ko ba consensus avec euh, le le président le sud-africain bu Kaf. Il ba a un consensus avec la FIFA pour le le le bien du football sénégalais bien africain surtout booba kon Augustin un taxawee instant yi déjà mu mu wàcc ci fédération bi euh, maanaam suis ñu duñ ko du am légitimité parce que dañuy dañoo bëgg CAF dafa bëgg Sénégal boppa mu suudew si au derrière Augustin Senghor pour mëna accompagner le football surtout africain. durant toutes ces années mo fi nekk gisuñu ben résultat bu mu fi def certes ci côté sport footballistique ils ont apporté beaucoup mais Sénégal dëkk bo xamante dafa egg ben niveau bo xamante Sénégal instant dafa wara a am ay stade yu bax même les pays les plus arriérés de l'Afrique, ils ont eu de bons stades. Quand Augustin ren war Al, àll ñu xool Et te Mady xam nañu ambition te mooy nit boo xamante ne macha allah apporter beaucoup sur le côté sport amna potentiel vie déjà aux générations foot. bu comme ça daf ñu indil coupe d'Afrique wala suñu stade yi baax xam nga. mais suñu stade bi yaa ngi nii Léopold Sédar Senghor tëj ñoon ko stade Demba Diop toj ñoon ko ba léegi kenn mënu ko defar xam nga ñu ngi ñu ngi ñu ngi négocier match naan ñu fubalee ba Thiès toll ni équipe bu Sénégal nga xamante ni moo nekk première en Afrique man daal bu ma sañoon Augustin du présenté wu waaw day bàyyi ñeneen tamit ñoom ñu xool parce que tamit loo gis continuité la quoi. parce que am na ambition bi quoi am na ngëm-ngëm bi te bëgg na ko kon ñun sénégalais bu ñu naxante quoi. bon nañ ko bàyyi ñu jox ko sansam ñu xool ba xam dina liggéey comme nu ga comme nu ko gars di defee parce que stade yaa ngi nii fii nii stade Léopold Sédar Senghor stade euh, Demba Diop stade yëpp euh, amul benn stade boo xamante ne ni euh, sa équipe nationale mën nañ fi recevoir parce que mën ñu fi recevoir dañuy dem ba ay Thiès di fa recevoir parce que amuñu suñu stade yi moo baaxul qu'on se dise la vérité bu ñu naxante dafa war a dem xajal keneen toog ñu xool ba xam football Sénégal dina dox wala du dox waaw ñu xool daal ba xam football bi dina dox wala dox moom moom dafa war a dem waru sax war a quatrième mandat war a ko wootee dafa war a dem abal ñu ñu xool keneen ah stade yi kay dara baaxu si stade yi yëpp a yem a Thiès Demba Diop Amine Thiès benn baaxu si ah Sénégal mu sax fu mu recevoir xam nga ni loolu avec Sadio bëgg Sénégal jël coupe d'Afrique loolu dina mer Sénégal de. parce que ba mu si bopp fédération bi ba léegi wax dëgg yàlla ñun gisuñ avancement parce que suñ stade yaa ngi nii lañ amoon sax amatuñ ko amatuñ stade bu baax stade yëpp ñu ngi ko toj ne dañ koy defaraat tey fi mu nekk nii may waxee yow amuñ benn stade boo xam ne nii tey bu ñu tey tey euh, euh, lu ñu war a recevoir mën nañ ko fa recevoir kon nag ki nga xamante nekk nii moom def na fi quatre mandats te mënul nekk yoon mooy na dem keneen ñëw parce que réew loolu moo koy doxal ku dem ba mënatoo da ngay bàyyi ñi nga xamante nekk nii bëgg nañu dem te euh, amuñ yoon ñu bàyyi leen may leen seen chance ba xam lan mooy avancer réew mi tamit nga toog continuer bëgg ne yow yaa fi toog jëmale bu kenn xamul te ba nga toogee ba léegi gisuñ changement lolou loolu ko wul rew tay sans yi ñu tollu ñun Afrique dafa wara tollu fo foo xamante ni surtout Sénégal amna luñu wara xol lo a xool ni ñun fofu lañu wara xol ci touba bi parce que avancement bi ñun avancer ñom ñun dañu wara tek fo suñu bët ñu avancé fa parce que amnañ opportunité bi tay war nañ mëna tollu fofu mais buñ toogee rek ne kenn mo jité ñun duñ mës am changement di leen siyaar di leen nuyu lu bare bare bare di wax gars bon buñu ñu naxante quoi nañ liggéey Sénégal jëm kanam euh, dëkk yu fi nekk am stade yu baax yëpp gënuñu Sénégal ah te Sénégal am nañu espace bu bari bon ci espace boobu noonu gars yi dañ ci war a liggéey ku ci am ambition am gëm-gëm am idée pour ñëw liggéey nañ ko bàyyi gunge ko ànd ak moom jàppale ko yokk ko doole comme niñ fi taxawaloon ñeneen ak ñeneen xam nga bu ñu naxantee. waaw mun na ko mun na ko mun na ko maa ni mun na ko ku dem ba gérer hmm, centre génération foot moom ah xam naa leneen la ñuy wax quoi oui man daal sama xalaat daal xam nga Augustin bu mu présenté wu quoi na dem. pour m'accompagner, accompagner pour mu accompagner CAF ak ak FIFA mu sa mission aussi au niveau du football sénégalais jar na mu consulter sa base sa base ne ko ah ya ya waxone mais garaaw ñun bëgg nañu nga and ak ak ñooñu ñu développer le football africain surtout sénégalais aussi. xamna né Madi bu doonee présent inshallah coach yu nekk fii si Sénégal dinañu gën a góorgóorlu joueurs yi dinañu am benn vision surtout locaux yi dinañu gën a góorgóorlu. sama dernier mot maanaam man ma ne sama ligue professionnelle la ligue de Ziguinchor soutient Augustin Senghor ma man monsieur Coly je soutiens Augustin Senghor pour le bien du football sénégalais surtout africain waaw loolu laa loolu laa gis bu point de vue naar ngeen baal ma ak su fekkente ne juum naa si si wax bi wax neexut. maay conseil toute cette jeunesse sénégalaise nañu voter Mali bu ñu bëggee am ay résultats bëgg am ay stades yu baax football sénégalais mun a egg ci beneen niveau seule personne qui peut l'amener jusqu'à niveau international gën a kawe fu mu newoon c'est Madi Touré. mais ogis tamit moom it boo gisee koo xam ne nii tamit moom am na yaakaar ne kii mun na doxal na ko bàyyi mu doxal parce que àddina noonu la da ngay toog bu sa àpp jotee nga jóg keneen dem mais bul toog rek na yow rek yaa war a toog. parce que yalla rek mo fi nek te du fi jóge mais ñun ñi fi ne ñëpp dañuy dem kon ku sa wàll jiyee da ngay bàyyi ñi nga xam ni commencé guñu ñu commencé xool parce que lool moy tax ñun li ñu bëgg ñu am ko